jërë ngeen jëf boo mbokk internet ci taamu di ànd ak ñun saa su ne ci chaîne d'information bi di Dakar People ñu am mbégte mu am solo également di ànd ak yéen ci jataay yi ñu faral di amal ñëwal actualité bu Sénégal comme noonu lañ ko fas yéene continuer également seeg waxtaan ak ku nga xam ni sénégalais yi xam nañ ko bu baax a baax mu yëngatu ci wàllum làmb di Baye Mandione dëkk ba diwaanu yi amoon combat bu am solo ñu ki démb mu nekkoon xew mag mag woo xam ni dem na ci ci fulla ak fayda jàmm ak salaam yàlla def lam ca dogal mu na fas yéene sekkal waxtaan yaatal ci ponk boobu dañ koy bàyyi mu nuyoo ak askanu Sénégal Baye Mandione nuyu nañ la. waaw ginnaaw ba sant yàlla du julli Seydina Mohamed maa ngi sant di gërëm sumay ñaari waajur mm-hmm. di la yàlla sama borom xaare leen àjjana ak mboolem jullit képp ku ñàkk waajuram ak foofu julli na ci àdduna bi rek yàlla na yàlla sama borom teeroo yërmandeem dëkk leen àjjana mm-hmm. may ñaan ñu ne ci hôpital yàlla fëgg seen bopp ñu dellu seen njaboot. Mhm. ñu ne ci prison yàlla sama seen sama borom génne leen fa ñu dellu seen njaboot. Mhm. may ñaan Sénégal yàlla wàcc fi jàmm wàcc fi salaam wàccal ko fi kilifa diine kilifa aada yi. Mhm. may ziar bu baax a baax di nuyu suma xalifa. di nuyu Mokhtar Mouhamed Mokhtar ibnu Sena Mandione. di nuyu xëy général ne Sénégal yëpp vraiment. waaw. alors Baye Mandione gis nañ ko di démb amoon nga combat sa diggante ak mbër bu ñuy wax Bébé Diène. mu nekkoon combat bu am solo ci sa carrière également d' abord ñu bëggoon a xam mooy yan condition nga préparé combat boobu. waaw damay sant yàlla sunu borom rek chaque jour rek doo alhamdulilahi rabbil alamin ndax man li tax ma war a sant yàlla dafa bari. ndax yàlla moom moo ma xër ci làmb ma dugg ci. wax dëgg yàlla ba ma nekkee xale bu ndaw yàlla dama dem géej. après ci la ma yàlla xër ci làmb may dem ba pare dem fu nekk. ba yàlla dogal tey jii ma ñëw ci làmb ji. làmb dafa ma loo xamante ni tey daanaka àdduna ñëpp a xam Baye Mandione tax làmb bëri na ay autorités yu bëri yoo xamante ni xamante naa ak ñoom ginnaaw yàlla làmb moom moo tax bëri na ay nit ñu bëri ñoo xamante ni fasantaan na ñoom kóllëre di demalante ak ñoom di duggalante ak ñoom ginnaaw yàlla làmb moo tax làmb fa la yàlla jaarale sama tur ba ma xamante ak ñoom ñëpp tout te man nag lépp lu ma war a def fi làmb def naa ko amatuma dara lu may privé bëri naa sumay mag yaa ngi dégg bëri naa ak sumay morom bëri naa ak sumay rak te bëri naa fi champion bu ne te bu dee wàllu may sens soxorew ma kenn waaw may naa képp koo xamante ni rek ba moo ngaa bëri baam ngeen baam ngeen may la sens bëri nga moom soxorew ma kenn ci suma carrière mm-hmm. waaye nag jaamu pexeem yàlla ak dogalam ndax baam ngeen mayul boppam suma adversaire it mayul boppam yàlla mooy maye te te kuy wuti moom kuy ñaan mm-hmm. dangay dem ñaan rek ki lay may moo lay may mu yàlla mm-hmm. waaye damay wax ni yàlla xañu ma waaw xañu ma xañu sama adversaire ndax tey lépp loo xam te ne ko rek xëy di ko nettali santal yàlla suñu borom ndax tey ni tëdd na ci hôpital ba tey jii bëggatoon jotoon tey dem bëre yi daanu du ñu bis njabootam wallaahi moo koy gën a lépp lu mu ci àdduna nit nekk na ci ay jafe yoo xamante ni tey jii bu jotoon bëre daanu du njabootam moo koy gën a lépp ci ma wax ne àdduna amul solo lamb gi nag yàlla suñu borom moom ma ci xuloon moo koy def mais bi may doog a débuté di commencé wax dëgg yàlla neexuloon samay waajur hmm. ndax man fi nga xamante ni falaa bokk wax dëgg yàlla xam nga bari daal nekkul woon seen i daal yaa ma gën a xam xam ma ñu day lay lante si naal moom lañ gëm mhm. démb ak tey xam nga mhm. mais dañ wax boo nekkee xale li nga bëgg moom nga bëgg te boo nekkee xale bëgg dara da ngay dëgër bopp mhm. mu ngi mel nga am sa sa doom mu bëgg a nekk ab jour nga nekk doo fubale lu mu mën a def ba ba fubal naka def lu mu la mën a baabee ba fubal naka def man tamit looloo ma dal suma carrière lu làmb sa bëgg-bëgg waaw suma bëgg-bëgg la mais suma waajuru jigéen mu sa bëgg mu bëre wallaahi suma waajuru jigéen su ko bëgg ba gis sama papa ji ma jur xam nga mais dama topp di naxanteeg ñoom di naxanteeg ñoom ba pare amay kilifa yu doon déplacé social ñëw si ñoom di naxanteeg ñoom ban bàyyi mooy bëri mm-hmm. xam nga mm-hmm. mais si biir bàyyi googu bu la bàyyee nga bëri it mais la nga xam te mën a mébitoon seen xool ñoom mm-hmm. ca commencement ba mën na laa bàyyi ndax léegi siw nga mbooloo mi bëri na ñuy gis ni ñuy dugg ak génn si kër gi duñ tas yaakaaru ñooñu ndax tey boo nekkee mbër di bëre tey ku ne ngay xamanteel ku nekkaa lay seet si kon nag ñooñu bu ñu sa kër la seet si tey say waajur dañuy ñëwanteeg ñooñu mm-hmm. même bu la teree sax ñooñu bu ñuy ñëw rek bi yàggee yaa ngi dégg da daan ah comme mu ngi man sama doom bëgg dara rek ma tere tere tere tere mu tey mm-hmm. damay xam ni lii bëgg a am la mm-hmm. xam ma naa ko ci bàyyi ñaan ko yàlla suñu borom noonu la fa demee nag te boobu ba léegi doucement boobu ba dafa message may la jàllale quoi boobu ba léegi nag maa ngi bëree xam ma uh-huh. mooy li ma léegi rek may sant képp koo xamante ne mosu ngaa jàpp ci créeru Baye Mandione ba ba dalee bëri ba léegi képp ku mus a dugal sa alal ci man ak bépp sëriñ bu mus a jël xalimaam bindal ma ay muslaay maa ngi lay sant di la gërëm la nga yàlla sama borom ñi nga xam dañoo génn àdduna ak ñi fi des ba léegi nii yàlla na yàlla sama boroom fay képp koo xamante ni sori nga bàyyi ma njoon bëgg ko ba man yaa ak moom yéen a yeewandoo yàlla na yàlla sama boroom fay képp koo xamante ni jigéen nga bàyyi ma njoon ba pare sori ka yàlla na yàlla may xolub muñ ba xol nga ciy def lu baax da ci xalaat lu baax da ciy def lu baax ndax li man lépp lu ma waru sama diggante samay mbokk wàccoon ak ñoom mm-hmm. waaw lépp lu ma war sama diggante samay mbokk amul sama benn mbokk boo xamante ne rek yàlla jaral na wërsëgam ci man ma xañ ci ko amul ma ma ci sant yàlla suñu borom mm-hmm. làmb ji nga xam ni moom laa yëngu moom laa doon yëngu mm. muy làmb ji nga xam moom laa doon yëngu mm. tey yaa dégg ma jóge si combat démb suma ma suma su ma rakk mm-hmm. muy bébé jéen muy xale bi yor wax dëgg yàlla làmb moo ni booloon sport la fola rek ndax seen am alayhi salaam moo gën. Hmm. xare na jéene ba ba tàyyi di am ndam xare yi na ba tàyyi ñu gañe ko. kon nag man Baye Joon mi nga xam du ma dara. Hmm. di as doomu aadama bu boo xamante ni mënalu ma sama bopp dara. Hmm. su ma nooyee mu dem ma xëccaat mu ñu yàlla sunu borom la. su ma lekkee mu jàll yàlla sunu borom la. kon bu yàlla wàccee si man ay ay damay wax sax ay ndax tolof tolof dafa garaaw. waaw non tolof dafa gar dafa diis du tolof tolof ndax sport la quoi a à part la ndax tey su ma nee tolof tolof ma maanaam ci wàllu lu muy yëngu yàlla may na ma ci ay victoire yàlla may na ma ci ay défaite am naa ci match nul yaa ngi dégg mais ci côté lamb nag hmm. waaw mais sama vie nag wax dëgg yàlla maa ngi ciy sant yàlla nag sama vie man man bàyyi ma joon hmm. maa ngi ciy sant yàlla yàlla mu may jàppale bu baax a baax a baax taxawaalu ma fenn maa ngi toog sama njaboot waa jàpp sama ñàmbur hmm. lu ma yàlla mayee cent franc ba jël ma may dërëm ba jël maa ngi suturlu kenn xamalu ma dara te ñi ma dëkkal samay dëkkandoo jéppoon Baye Mandione mhm. yaa ngi dégg de mhm. tey mën naa wax ni tey jii samay dëkkandoo seeni doom yi ñu jur sax mooy Baye Mandione moo leen ndax mhm. ndaxte yàlla moo ma sàkk seen biir ma dëkkandoo ñoom muy dëkkandoo yu rek dëkkandoo yu am solo muy dëkkandoo bu rafet da am moom solo gay ne may wax tey caaro yi gépp maa ngi leen di sant di leen gërëm képp ku bës a jàpp ci kereeru Baye Mandione dëkk caaro yi maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax yaa ngi dégg képp koo xamante ni mosu naa jàpp sama créé dëkkoo caare ak foo mën a dëkk ci àdduna bi nga gis Baye Mandione yàlla dogal nga am si moom cofel mhm. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye nag tey nguur ak yàlla suñu borom warul jeex waaw nguur ak yàlla jeex ndax tey président Macky Sall moo fi nekkoon barki démb def déclaration am ne bokkatul mhm. yaa ngi dégg de mhm. yàlla moo yemale foofu nguuram yaa ngi dégg am na ay nguur ko fi jiitu woon foofu tey noonu la àdduna noonu la ko yàlla sama lu wow lépp lu tooy dina musa lépp lu tooy dina mus a wow mm-hmm. lépp lu neex dina mus a xari mm-hmm. waaye lépp lu naxari dina mus a neex yàlla moo yor wërsëg nag li nga xamante ni moo nekkoon suma wërsëg ci làmb mm-hmm. lépp lu ma ci waram yàlla suñu borom jox na ma ko ba mu mës sëg wax dëgg yàlla te dama ma am ci fierté kontaan nag ndax li ma gën a kontaan loo mooy lépp loo xamante ni bëri naa ko rek ak kase bi nu mu mën a toll wallaahi li ci doomu aadama yi lekk lekk ma ko ci man baaba joon mu war a bëre sama njaboot lekk ci maanaam daanaka jaam yàlla yi la doon bëreel lépp lu ma mos a fay rek jox naa ko doomu aadama yi toog. sama avance sama sa waa Thiaré ñëpp sama avance. Hmm. musuma cee préparé combat musa am. saa ma ko avance rek dama yàlla dogal ma jël avance bi séddale ñëpp toog. Hmm. léegi li may préparé combat bi nag bu combat bi jege see. Hmm. man may lijjanti lu ma préparé sama combat rek uti ay musa yooyu. may sant yàlla tamit ci benn côté. bëri naa ba tollu fii. musuma def lu ñaaw. musuma dem ci sëriñ naka defal ma nangam mbër. musumaa dem ci sëriñ nekk takkal ma bër ñu ngi may déglu musumaa dem ci sëriñ nekk joxam ma gas wala joxam ma sul wala dafa ma nangam mus sa am ba ci combat bi ma jógee démb démb wallahi bu fekkee gas naa jël benn pusa bu ndaw sax suul ka ndax moom mm. yaa ngi dégg de benn pusa bu ndaw laa pusa mm. ma ma suul ka ndax moom moom mm. ngir lu koy la loolu lu koy yàqal yal na ko yàlla xëpp sama njaboot bu fekkee def naa loolu wala wala muy benn sëf wala takk wala dara bu ma ko def moom ak ku dul moom mm-hmm. kon damay sant côté boobu damay sant yàlla suñu borom parce que ay jullit lan yaa ngi dégg ay jullit lan mm-hmm. te làmb day loo xamante ne tey ji ñun ñu si yëngu ñoo bokk ndey ak mm-hmm. waaw mbon bu ci xew la tey ñëpp ay dem yaa ngi dégg Bébé Diène nag suma ma rakk la muy jàmbaar wax dëgg yàlla tey bu ko neexoon tey jii yaa ngi dégg ñu la ko sa combat ak Baye Mandione mu daw deuxième wala dàngam. xam nga mais dafa nangoo bëreeg man man tamit ma am xolu yàlla may ma xolu man tamit man nangoo bëreek moom. donc man maa raw ci làmb foofu. mais garab ci kaw lay fekkantee. moo tax mbëri ndaw yi nañ ànd ak yar ak teey waaw ndax boo yoroo rek wax dëgg yàlla lépp loo bëgg si làmb da koy am. seetlul man mbër yi nga xam ne benn mbay saase génn ci benn mbër boo xam dafa réew amu ci xoolal rek parce que pasol bi rek dafa ka mbay saas kan boo gën a yaru ci làmba boo ñaa mbër mu dal la mu ranta bu kees mbër mu dal la yaa ngi dégg de mm-hmm. xoolal mbër yi nga xam ne doy na mbay saase génn ci benn mbër boo xamante ne moom mooy loolu ñëpp ay nit ñu dal ay nit ñu baax lan man foofu laay xoolaa ba pare mu ñoo xamante ni tollu nañ ci position boo xamante noo jugoon dimbali seen i waajur yaa ngi dégg te dama sama ñaari waajur te man ma wóoree ma bëree yow nga am kese bu baax dem dimbali say waaju dama du ma la ko xañ parce que tey dama ne tey am am mbëri bu ñu ma doon di baam goon tey mbëri paam ay millions ñëpp ndax tey jii Modou Lo mooy roi des arènes tey Modou Lo bu ko wóoroon tey bu bu joxoon benn booy sens da koy wóor ne tey booy bi bu deewee dee na na fekk sax lu ëpp wala lu ko jege yaa ngi dégg xam nga loolu loolu loolu tawfeex la tey bu Modou Lo nangoo bëreeg Ama Baldé wala mu bëre nangoo bëreeg boo Niang kase yooyu ngi si am noonu xanaa moom Modou Lo yàlla daf si dafa daf defal tuyaaba ndax ñoo bu na mee kase moom mooy roi moo leen bëre ba tax yàlla may leen kase yooyu noonu man nag foofu foofu lay fonctionné waaw su ma wóoree man su ma bëree yow da ngay am xaalis dem dimbali say waajur ak ku ci yàlla boole damay bëri ak yow du ma la ñaane dara comme nag yàlla dogal na bëri naa ba toll fii wax dëgg yàlla mhm. ma am ci ay ndam am ki defet te man naa wax ne sa aw ma xar ndax tey bàyyi ma yoon du bàyyi ma yoonu caare rek man àdduna am bëgg wallaahi te képp koo xam te doo nga ñaanal bàyyi ma joon gëmal na ñaan si na ndax tey di nga yëngu si dara yàlla jugaatu ñaanu jullit yàlla moo ko wax te yàlla yàlla juwee di boppam mm-hmm. yàlla nee na lu ma ab jullit ñaan mm. dinaa ko ko maanaam dinaa ko nangu waaye na maay xool li gën si moom ma may ko ko waaw bépp ñaan lu ma nit musa ñaanal rek muy ci làmb ak ñàkk làmb ak côté bu nekk rek maa ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla sama borom boole ñaan yàlla wàcc ci Sénégal jàmm wàcc fi salaam wàcc ko fi ñëpp képp ku musa sonn ci sama carrière man ma Mandione képp ku musa wax Baye Mandione wax bu ñaaw jéggal naa la ci xol bu sedd guy képp koo xamante ne musu ngaa jàpp sama carrière di xeex ngir Baye Mandione wala ngay xuloo ngir moom moom maa ngi lay jéggal bu baax di la baal wax te di wax nañ war a yàlla suñu borom warul jeex. yaa mel ni kuy tàggoo da ngay bàyyi lamb wala bi non non du doucement rek. Mhm. maanaam tey jii duma takkati ngeen bay bëre. yàlla dogal na loolu su même bu ma bu fekkoon dama daan sax euh, bébé Diène loolu laa programme moom wallahi même bu ma daanoo bébé Diène takkati ngeen bay bëre. mais mhm. donc nag am naa samay rakki mbër yu nekk caare yi tey di bëre. Mhm. lu ma yàlla wërsëgal ci sama xaalis sama ñaxaman dinaa yëkkati xaalis jàppale la Mm-hmm. mooy suuf bu dee ci wàllu kaar ma jàppale bu dee ci wàllu biir ma jàppale bu dee ci wàllu groupement la mm-hmm. yaa ngi dégg nag yàlla mooy suturaal ci côté boobu noonu xam nga mm-hmm. mais pas nag léegi takkati ngemb dem ci làmb ji di bëri loolu moom arrêté naa ko bis ni ki tey ndax Tyson dem na ba dégg roi des arènes tey tekki na ngembam dëgg la Yékini toog na quinze ans daanuwul ñaari defet lamb am mhm. yaa ngi dégg yàlla dogal mu tëkk ngembaam mhm. Moustapha Gueye mhm. ba muy tëkk ngembaam dafa tegale ay defet ñëw jël ñaari avance muy Balla Gaye la de guerre am si ñaari defet daa jaaroon na bàyyi làmb yaa dégg ak champion yu bari yoo xamante ne tey jii ñu ngi fi tey jii njëkk ma ci làmb foofu gën a siw bàyyi ma joon foofu am ci làmb loo xamante ni xaaj ba xaaj ba bàyyi ma joon amu ko kon damay sant yàlla nag ma ci nekkee ba heure bii tey jii ba tey sama morom yu bari moo nekkandoo ci làmb ji wane ginnaaw bàyyi làmb yàlla dogal nag may ma courage man nekkoon ci ba léegi nii mm-hmm. wallahi lii lu ma programme bi ma ma même su ma daanoon jëkk yi même maamoon dem démb sax bi lu ma téewoon sama xol la waaw même maamoon dem démb sax wallahi damay toog wax li mu wax nii man du ma tricher du ma waxantu ndax su may fen damay am bàkkaar mm-hmm. te yow may déglu boo xafee da ngay am bàkkaar mm-hmm. te yàlla bëggul loolu ab julit man naa njaaloo man naa sàcc mën naa def lu naa mu ne mu ne na def yëpp garaawul ban ka laajee fen mu ne mukk mu ne fen moo gën a bon kon man du ma fen tey yàlla mayoon ndam sax nii ma wax nii lay wax xam nga ndax démb ba léegi journaliste ñu ngi fi ñëw mais damaa xawoon a xat yaa ngi dégg waxuma ak yéen ay premier journaliste yu ma waxal man daal képp ku mos a sonna sama carrière man Baye Mandione la ak foo mën a dëkk si àdduna bi mhm. sant naa la mhm. gërëm naa la mhm. yaa ngi dégg mbir yi nga xam te nañ ñoo de si lamb ji bëri kenn la ku ci nekk wërsëg muy am yàlla na ko yàlla sama borom jox ba nga doyal sëg sëg sëg sëg sëg mm-hmm. mbëri ci làmb ji yàlla na nekk ay milliardaire mm-hmm. dimbali seeni waajur ak képp ku ci yàlla sama borom boole mm-hmm. ndax man loolu laa bëgg man su ma déggee combat diw jiw taxaw na sax sama xool day sedd billaahi wallaahi taala damay xam tey ki day fay ko xaalis dem dimbali ci ay njabootam xam nga tey mbëri nga xam ñooy bëree wax ko la ku dëkk caare ku dëkkul caare yëpp xam nga gërëm mbër moo xamante ne wax dëgg yàlla ndigal mu ngi ne équipe di géejawaay ñoo moom mu jël ma si biir combat billaahi wallaahi tallaahi def ma comme ku bokk ak bàyyi ma njoon nday ak bàyyi dama dem ba mu gi booy bi su ma ko xoolee dama koy xool sama bët day taa sax ndax maanaam ni mu bëggee xam nga tey loolu dafa garaaw nit jigéen la nit jigéen la loolu ba jigéen jigéen jigéen mhm. te dajul loolu si yow wallaahi xoolal ndigal mu ngi dëkk ba géejawaay mhm. chaque fajar ñooy ànd maa moom ma jëli ko maay dem ba bu tekkanam jëli ko ñu wàcc ak sama kos kos maa lay ziar la gërëm ma ànd ak moom dem dine malika liggéey la ñuy liggéey yaa ngi dégg de pare tegaat ka ci bu nu xëyaatee xoolal ma dem jëli ka ñu dem Ngor. yaa ngi dégg waa Ngor ñu may si ak Almadi ñu may di sa saali saali ne foofu foofu yëpp rata nañ foofu. yaa ngi dégg sama jour yi moo war a liggéey caare fii nii. ma ànd ak Badou suma rakk yaa ngi dégg suma grand Assane. ak ñu moo war a àndal yëpp ak suma copain Alla Ndiaye. yaa dégg ak ñi nga xam xamante ñoo la àndal yëpp yaay dégg liggéey li mooy liggéey tey jii kon damay sant yàlla suñu bëri mais ndigal moom wax dëgg yàlla mention spéciale mhm. def na loo xamante ne tey am na ñu ko waroon def te defuñu ko billaahi wallaahi jigéen ma loolu waroon def lu ndigal def te defuñu ko mais du ma leen ci balaame nag mhm. ndax yàlla xool lay fay mhm. ku nekk li nga li nga yéene sa moroom ci ci lu baax wallaahi loolu ngay am waaye nit ku nekk la nga yéene si lu sa moroom ci lu bon loolu ngay am man de yàlla sàkk na ma bind na ma de man bàyyi ma joon hmm. sama xol bii billaahi wallaahi tallaahi su ma si yéene doomu aadama lu bon hmm. yàlla na yàlla na ko yàlla xëpp sama kaw hmm. waxuma waxuma ay mbër ak ay lamb de nit rek yàlla sàkk rek jigéen doo ci maam aadama awa man ma joon ma lay xool yéene la lu bon wala am bët ma lay xoole bu ñaaw yàlla na ko yàlla xëpp sama kaw aw jot boobu sax xam ma xam nga tey mbër dafa am bërëkat am yaa ngi dégg am ñoo xam te ne affaire day neex na dugg ci am na caare fi am na ñu fi nekkoon tey jii wallaahi dàqunoo bëre fuuf wallaahi dàqunoo bëre fuuf gën nu bind gën nu formu fuuf. te yàlla dogal na si ñoom tey dem nañ tey ba ñiy gën a àdduna ñi dem ba découragé te mosu ñoo takk sax ngeen ma ñëw stade bëre. nu ñu nekk xale yi ndaw nekk caare yi. yaa ngi de mhm. yàlla lëkkinu si biir di caare yi. mën ne xale bu ndaw. ñafe sama life nag wallaahi mu métti woon lool. mbër yu bëri dem écurie ñoom ñëpp genn wàll yëpp maintenant man maay sel mbër ba ma jot bu sa bëree ba ni ma toogee di wax ak yow tey fas yéene tekki sama ngemb ci làmb gi tey jii hmm. mosuma dem beneen écurie bu dul écurie caare yi te caare gi ma dëkk tey hmm. du ma dox fenn di fa am sax interdit hmm. vraiment ndax man Madoune mooy sama maam borom dëkk bi. waaw oh, ci caare googu laay taxawal rek man Madoune mooy sama maam kenn ëppalu fi dara dégg ma de ndaa Taali mooy sama maam maam Lamine mooy sama baay Ibra mooy sama maam tey caare képp ku fi baax baa ma yoon nga bokkal kon nag caare kenn ëppale wu ma fi dara yaa ngi dégg de mhm. te ñun caare ñëpp ay mbokk moo wax la ko tey tey koo fi wax lu bon sa sa mor nga ko wax te su ma la saaga sama bopp laa saaga caare yi loolu la yàlla dogal ñëpp ay mbokk waaye dëkk lébu day dëkk boo xamante ne tey ñun lébu mhm. mën na la joxante lekk mhm. mën na la joxante naan mën na jàppalante ci côté bu nekk xam nga mais lenn rek mooy sunu problème ñun lébu lenn kese kese kese mooy suñu problème tey mooy puus luy puus puus maanaam tey man ma nekk seen bi tey di doomu bu tey yaa ngi dégg de ñu war a manko puus la yaa ngi dégg mais tey jàppalante bi war a union bi waaw bu waroo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ay benn benn lay doon si ñoom waaw ay benn benn tey boo xoolee caare géej li fi nekk ci autorité ah baam baam gën day préparé combat ba ni mu war a bërëjee amul kenn ku yëkkati cent franc dëkk caare yi mm-hmm. ne ba xam ne ñoon maa la jàppale li amul su combat bi kon ma la wax non doucement rek waxuma ay ba ma dalee bëre ba léegi daal dama la bëgg nga déglu ma dafa am discours mooy def nii ah, ci sa carrière yaa ngi dégg yaa ngi dégg mais tey sama combat bi li muy réeré ak li ñu ngi doon coowee coowee ñaari nit ñoo ma jàppale si caare hmm. yaa ngi dégg hmm. ñaari nit hmm. muy Moussa Gueye bi dëkk Orix président Agri président euh, ASC Orix bi yàlla na yàlla fay yaa ngi dégg ak sama benn doomu ndey As mu ne fii ci auto station bi waaw nit ku baax a baax a baax yàlla na ko yàlla sama borom fay. Mm. jàppale na ma trop xam ma. Mm-hmm. xam nga may may sant yàlla bu baax na ñi nga xamante ne tey jàppale bi nga ne xam nga ni jàppale ñu bari ci xaalis a nga teg non. Mm. tey wàllu ñaan ak ñi nga yoroon bu ñu naan yàlla yàlla may ndam loolu jàppale bi dara gënu koo rëy. yaa ngi dégg bu dee jàppale boobu moom wax yàlla moom kenn ëppaloo ma ko. ndax combat bi amul ku yeewoo Sénégal génn wala yëpp baax na yéen a ndam. Mm-hmm. waaye nag lu yéen a baax na yéen a yëpp baax na ndam yàlla moo yor ndamam nag moo koy jox ko neex mm-hmm. waaye man ñàkkuma ndam ndax sant yàlla laay def ku bëreeg say mag li ma wax léegi bëreeg say morom bëreeg say rakk waaye sant yàlla tey bu ñëpp defoon ni bàyyi ma ngeen bëri kon làmb day avancé wallaahi tey bu gaa yi nangu woon a bëri seen biir jàppale seen rakk yi jàppalante ñëpp ñëw yaa ngi dégg jaxasoo suñu biir bëre kon mbëri payam xaalis mais tegginte beeg kii laay bëre du ma bëree kii ñu de carrière boo jaar moo tax mbër yu di toog def année balance sax ay mbër yu ba def mm. bari yoo xam sax damay ñu doom muur mu ni kii gëj naa bëre barke rasulillahi mu sama ñàkk a jox te boo koy ma man dama kaa rob ma jox xaalis non non damay xool ni diw bi kat mbër la mm. te de 3 yaa ngi dégg te donc dëkkul caare du sama mbokk du sama dara te xam naa ko ci làmb gi xam naa turam rek daje naa moom yàlla dogal bis boobu xaalis mu sama bopp dama yëkkati xaalis jox ko ne ne ma mbër mooy damaa xam ni kii def na année balance mm-hmm. te man damay sant yàlla ba ma dalee bëre ba léegi mu sama def année balance ba dëree bëre ba léegi ba bisab tey may taxaw teg sama ngemb tey billaahi wallaahi xanaa coronavirus bi <laughs> bi fa coronavirus bi ñëwee daal laa xam ne ñu ñëpp a def ana balaas képp kuy mbër moom ndax feebar bu fi duggoon la ba nekk fi yàlla sama borom jëlee aj làmb yi aj lépp boobu laa senti ne mooy bëri mais boobu depuis ma takk ngemb ba léegi mhm. saison bu nekk dinaa bëri bennoon wala ñaar yoon kon loolu sant yàlla suñu borom la lii nag ab discours moo vraiment gërëm naa ñëpp a bépp journaliste yi musa euh, déplacé ñëw si bàyyi ma goon interview mm-hmm. ak fu mu mën a nekk ci Sénégal àdduna sant naa la gërëm naa la mm-hmm. ndax dompe sa sor la bokk tey kenn mayul sa bopp dara yàlla mooy may lépp tey bàyyi gën tur mu am tey ba ñu naan bàyyi gën bàyyi gën man du ma ci du ma dara ab mm-hmm. taalibe laa rek mm-hmm. yàlla suñu borom moo ko dogal ci man mm-hmm. te yéen média bi da ngeen cee bay diw diw média bi ndax tey bu fekkoon dañuy ñu gëm ko mais tey amul benn média bi génne loolu tey ji ndax boobu média bareeguloon kon nag nii média baree tey ba mbër mu bëri ñaari combat ñett sax yàlla muy la tur boo xamante ne mooy loolu kon ñun mbëri nañ gërëm média bu baax a baax may sant bépp promoteur boo xam ba su ngaa yëkkati sa xaalis dëgg bàyyi ma njoon yàlla boole suñu maa ngi lay sant di la gërëm yàlla na yàlla sama borom fay bépp boo xamante ni rek wallahi mus ngaa xeex ngir ma njoon wala bàyyi ma njoon di bëri nga ne yàlla na ko yàlla may ndam ak foo mën a dëkk ci àdduna bi Sénégal ak àdduna bépp foo mën a nekk rek yàlla na yàlla sama borom fay bépp bànneex moom musa am ñi ko mos a bokkal ñëpp yàlla ñu yàlla fay nu ñëpp waaye bépp naxar moom mos a am tamit ñi ma ko mos a bokkal ñëpp maa ngi jéggalu ñëpp di yàlla sama boroom wàcce Sénégal xéewal wàcce fi jàmm ak salaam may gërëm suma papa Babacar Diop mu ngi nuy toog ba mu yàlla boolee ba léegi yaa ngi dégg yàgg na ak ku ñuy wax Mamadou Diagne ñu sonn sama carrière lool. yaa ngi dégg ak sama grand frère Assane. ki ñoo bokk ndey ak bàyyi ma moom topp ma si moom maa ñeenteel brakaam mais saawu ma geesoo rek wallahi sama saawu ma lu mu tàng tàng muy naaj muy guddi muy bëccëg saawu ma geesoo moom laay gis ñoo bokk ndey bàyyi. wallahi may gërëm suma grand frère Mañañ xam nga may santaat bu baax ndigal. santoon naa dama koy santaat de ndax dafa am lu tax. waaw ba ñëpp tawee dawee ba ci ñi ma jege ba nu dawee ñëpp daw saayeeku billaahi wallaahi taalaa moo ñëw def ma ni bokk ak man ndey ak bàyyi kon ndigal yàlla na yàlla sama borom fay ndigal koo mën a koo bëreet ak ku mën a doon ci àdduna yàlla na yàlla sama borom may ndam ndigal yàlla na yàlla sama borom def roi des arènes barke ci Seyna Mohamed yaag Mbaye Guèye junior mbay même Mbaye Guèye junior bee bi dëkk bi Mbaye Guèye xam nga ko mi dek fay Fass Mbaaw wallahi nit ku baax ngi noonu ak ku ñuy wax B52 yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla sama borom fay Ahmed Alane Ndiaye suma doomu day conteneur max conteneur baru suma rakk suma lépp chaque jour da doon ñëw passe ci affaire yi yàlla na ko yàlla sama bu baax a baax suma grand frère bi ne Espagne muy aat sonn na ci po trop yàlla na ko yàlla sama borom fay képp koo xam yaa ngi sonn ci bàyyamam joon ak ku man a doon yàlla na yàlla sama borom fay may gërëm bu baax suma papa suma kilifa suma lépp muy Tayru Sarr mhm. sonn na ci man trop danaan toog mu ne ma bu la neexee nga bàyyi bëri tey nga wax loo bëgg ma defal la ko ma ne ko lii dafa ne ba xam nga tey nit ku la wax loolu tey jii yaa ngi dégg mais man damay borom jom jom boo xamante ni tey damay bëgg donc mu ngi may jàppale suma papa la suma lépp yenn saa yi nag nga fayital loo xamante ni yow yaa koy fayital sa bopp quoi waaw dañu am solo waaw moo taxoon nag ma ma dëgëral affaire yi boobu ba léegi mais danoo toog mu ne ma baa ma gën waxal loo bëgg ma defal la ka boo bàyyee làmba tey tey tey boo bàyyi woon làmba tey waxal loo bëgg ma defal la ka ma ne ko père bàyyi ma bëri ba si kanam rek ndax donc mu ngi may jàppale si côté bu nekk rek yaa ngi dégg mm-hmm. mais damay bëgg yaa ngi dégg di ñax encore waaw yaa ma gën a xam daal ci beneen côté bu quoi xam nga tey yu lay defalee day yomb donc lu ma bëgg ma ko defal wax dëgg yàlla moom ma soxnaam Marème ak njabootam ñoom ñëpp billaahi wallaahi talaay mention spéciale lu ma bëgg suba mu ngoon ñu ma koy defal ma na tos naa man su ma su ma su may bëri instant bi ne maanaam bëgg-bëgg moo ma ci nii rek may dem may bëgg dëgg bëgg rek yaa ngi dégg may gërëm nag mbëri caare yëpp képp kuy takk ngeen ba yi maa ngi lay gërëm ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp maa ngi gërëm ñëpp mm-hmm. ndax yàlla xol lay fa yomal xiyam mm-hmm. julli baax na mm-hmm. woor baax na nata asaka baax na lépp baax na waaye yàlla suñu borom day fay xol de wallaahi day fay xol ndax man sama kaa laa koy xool ndax man ah. yàlla ma sàkk yàlla ma bind moom moom de mëna lu ma saw bopp dara nag mais lépp lu jaam di def si digganteem ak boromam ah man de manuma matal lépp de waaye maa ngi ci góorgóorlu de defuma lu bon waxuma lu bon góor ci li ma man ma nu ma lépp kon am la loo xam bu dalee sama kaw tey jii lu ma war mooy ab jaam laa sant yàlla suñu borom bu baax a baax yàlla xool li ma jox tey ba caare yi tu tourné àdduna bi bu ne baa ma ñu ne ah kooku da amul problème nit ko bu leer la loolu am nañu ko bëgg amuñu ko samay waajur seede ka Sénégal dugg seen nopp direct du loo xamante ne damay toog di inventé sama papa nee na ma nangam wala sama yaay nee ma nangam déedéet mhm. lu nu jëf àdduna gis seen bët la ñu wax ka ñu gërëm ma guddi gërëm ma bëccëg gërëm njaboot gi yëpp may sant yàlla ci loolu bu baax a baax mais Ousmane Diop moom mention spéciale yàlla na ko yàlla sama boroom fay moo amee dem ba ñëpp saxee yaa ngi dégg de ñoo taxaw sama wet yàlla na yàlla sama borom fay barki Seyna Mohamed Ousmane Diop mention spéciale Ousmane Diop mention spéciale ni nga ni nga dalee tey nii foo tund di wax lu baax di ko def yàlla na yàlla sama borom fay yàlla fay la ko sa njaboot barki Seyna Mohamed nit ku baax Ousmane Diop nit ku baax la billaay ak tam sax moo tax gars yi di ko yab nii mais billaahi wallaahi te nit gëmu gënu ko moo la ko tey mhm. nit gënu ko mhm. mais Sénégal nag yaa ma gën a xam dafa am lu fi am loo xam mooy lan dañuy jël dañuy jël nitu dëgg def ko fenkat jël fenkat def ko nit ku dëggu mhm. yaa ngi dëgg loolu moo am Sénégal te Ousmane Diop kenn gënu ko nit ku baax la barke Rasuul laay may gërëm suma doomu nday am seen nit ku baax la wax dëgg yàlla démb fi la yendu billaahi wallaahi la yendu démb fi la yendu yendu amul maanaam amul maanaam lu ma lu ma jàppalewul yàlla na ko yàlla sama fay ak max yàlla na ko yàlla sama borom fay bu baax a baax a baax max moog ama sañe ànd quoi ak moom rek am xaarim ngoom ñëw na fi yaa ngi dégg bu mbaaw yàlla na ko yàlla jàpp na ci affaire yi quoi général bu mbaaw su ma la yàlla ne woon na fi jàpp ci affaire a baax a a baax ak euh, ak ku ñuy wax Pokoti yu ndaw yi nag yi dëkk sama ko ñoom mention spéciale wallahi xale yu ndaw yi daanaka préparation combat bi billaahi maa ngi ñoom ñoo doon nekk bëccëg ba bi suba laay bëri sax maa ndaw yi nekk si kaw naan ataay ba deux heures ma doog mu am sax 14 ans wala 15 booy ñuy ànd am na euh, sama taaw Sénat Mohamed laa tuddee sama benn seen doom fi lañ fréquenté ci man wallaahi ñoo mën a dama dama wax naa combat bi wétoon wétoon naa ci torop mais vraiment xale yu ndaw yooyu wétale nañu fu ma tourné ñoom laay gis ba démb ba mu jugee làmba it ñoom ñoo ma dar maa ngi ñoom ñoo nekk balan ñoo nekk sama kër Père ma xale ndaw ñoo nekk ba une ma yëkkati xaalis jox leen de nee na dem leen ñu reer yi ngeen tëddee ba suba ngi dem may kontaan trop quoi vraiment di kontaan suma jigéen moom tamit wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla fay Aïcha yàlla na ko yàlla fay ndax démb ndax nit koy wax naan dobe sot la bokk mm-hmm. ndax moom mii démb dama Sénégal li fi ne ci bari na trop mais démb dama ko seen billaahi wallaahi tallaahi suba ba ngoon mu ne si mbedd mi si koñ bi donc mënu maa jot bëggoon naa sax bu dee benn bas sax ma wax moom mais ba xatoon naa xat goo xamante ni moom day comprendre ba bi may génn oto bi maa ngi jàkkaarloo moom di nga gis encore wallaahi muy jaayante tey tamit bu ma yeewoo moo fi jiit wallaahi démb ba léegi journal depuis démb ba léegi journaliste ma waxuma kenn démb am na si journal xam ma seet du fi ñëw démb si guddi gi mhm. billaahi wallaahi tallaahi waxuñoo ak man keneen la dem waxali mais man ba léegi nii dégg nga ma de ñeneen lan waxal mais ba tey waxuñoo man dégguñu baax nga wax benn bi mooy premier ma ma bëri démb bi bi mooy premier sortie ma def mm-hmm. te moom laa ko defal te tey ma xëyee ma jullee ba pare ba téye course ba pare mm-hmm. ma toogee fii mm-hmm. dama ne man damay récupérer fii ba trois heures quatre heures ku ñëw ma doog a wax ak yow yaa ngi dégg de mais bi mu nee tël billaahi daf ci biir laa nekkoon dama daa ma ma ma sentir mi moom rek sama soxna ñoo wax ma ko rek ma génn yaa ngi dégg ci laa ñu def émission bi mm-hmm. mais yàlla na ko yàlla sama borom fay yàlla aar ko bu fekkee amul borom kër yàlla na ko yàlla may borom kër bu baax moom si njaboot gu barkeel barki Seyna Mohamed yaa tamit boo may <laughs> soxna su baax nga am ci nga am ci njaboot gu barkeel barki Seyna Mohamed njaboot gu am diine gu am lislaam barki Seyna Mohamed may kontaan bu baax di gërëm baam gën fora mm-hmm. ku sonna suma carrière la mm-hmm. Serigne Assane Fall ku sonna suma carrière la mm. euh, moo Ndiaye ku sonna suma carrière la mm. euh, Ah, moo jaañ wax naa ko sànq moo jaañ yaa ngi dégg ak i Mor Diop ñoom ñëpp mhm. képp koo xam mos ngaa participé ci bëgg a carrière Bamba Gueye ziar naa la gërëm naa la kontaan naa trop mhm. lii la message moom jàllale nag yàlla dogal na seen wërsëg la yéen a si jot ma jox leen que yàllaahi moo tax boo xoolee tey débat mu sax ci euh, yàlla defal ko carrière bu doy waar yaa ngi dégg yàlla defal ko carrière boo xamante da dem ba dégg roi des arènes dimbali njabootam yaa ngi dégg dimbali waajuram mu jigéen ndax moom ne paxam dafa génn àdduna paxam jo yàlla na ko yàlla xaar àjjana yàlla na ko bi dig yàlla nekk njiglaayam yàlla nekk ubbeekoom ci àdduna bunta bu mu laa yàlla sama borom ubbi ko ak mbooleem mbër mbër muy takk ngemb ci làmb jàppale. Mm. ziar naa ñëpp kontaan naa trop wasalaam jaajëf. Mm. merci waaw Ndione ko jeexale peut-être li nga wax ni c'est émouvant wax dëgg yàlla parce que yàq nga samay question sax doot ma mën a poser parce que tamit xam nga tekki làmb c'est un peu touchant mm. nga def carrière bu am solo ci làmb loolu kenn doot ko dàq wax dëgg yàlla mais tey tekk nga sa sa sa ngemb ju ci kanam dàq li nga li absolument mais boo doon dikkaat a en quelque sorte combat yi da ci a marqué wala lu mel nga bàyyil ñu ma a ma mhm. ma mën a da dajeeg man dama ne man mii su teelu la bàyyi laa ma naa am problème adversaire billaahi wallaahi taalaa dama naa wax loolu waaw mhm. ah ay mbër xam ne may war a bëre ñoom mais ko si jàkkaarloo da lay bëggee bëgg boo xamante ne yow sa yaram da mais ay gor lan mm-hmm. deretu góor mooy daw suñu yaram mm-hmm. wallaahi mm-hmm. même ba jamono yi paase am na mbër mu ma waxoon da ma bëgg a bëri moom ma ma ne kii de mos naa dégg moom station sàngam mu jox ma fa cër boo xamante ni man de bu dee gor laa kii bi doon milliard su ma bëri ak moom am na ay mbër yu bëri yoo xam naa bëri ak ñoom bëriwu ma ndax ma day ñoom ñu am maanaam lu doxalee sama di jox ma benn respect boo xamante ni di la ñaanal di la safoo di la bëggee man a man daal gor laa quoi kii bis ban dajee mu defal ma teranga bi ñu jàkkaarloo ma ak moom xam nga teranga du xaalis rek mm-hmm. yëg-yëg ak jàkkaarloo ci xaalis la mm-hmm. waaw may gërëm encore wax dëgg yàlla tamit buuse ah kaco ah. ba nit ku non nit ku baax la yée buuse nit ku baax la mm-hmm. waaw ndax nit ki moom wax dëgg yàlla boo ko jegewul doo ko xam waaw nit ki moom boo ko jegewul doo ko xam billaahi walaatalaay mais buuse nit ku baax a baax la combat bi daf cee sonn sama combat bi mm. billaahi wallaahi talaahi mm. boole maag ay autorité ñu jàppale ma mm. ba pare di yëkkati xam di ci def yàlla na yàlla sama borom fay buuse moo xam lu bëgg yàlla na ko yàlla sama boroom defal waaw ñi ma doon toggal ak waa sama mag ma jigéen yàlla na ko yàlla fay Khady Sarr Ndiaye yàlla na ko yàlla sama borom fay ngaa mm-hmm. nga faal sama soxna Rose ak sama njaboot geeg yaa ngi dégg ñi si kër gi képp ku yeewoo si kër gi rek yàlla na yàlla sama borom fay ak dëkkandoo yeeg ñëpp mhm. yàlla yàlla yàlla yàlla jàpp barki Seena Mohamed maa ngi ziar ñëpp waaye di gërëm ñëpp wasalaam alors bàyyi ma joon après lamb après mhm. lamb parce que bëgg naa aussi nga wax ma ci xam nga gis nañ mbër bàyyi lamb bàyyi lamb carrément waaw la man nag du ma bokk nga xam te ne wax dëgg bàyyi lamb ba pare yaa ngi dégg du ma bokk ak tey mbër yi nga xam ne maanaam bàyyi làmb man la ko bàyyiwul man du ma def genre boobu du ma def noonu. Hmm, desaat ci làmb ji. maanaam waxuma loolu de maanaam ay man du ma du ma doon tey mbër moo xam damay bàyyi làmb ba pare laa wax. Hmm. man li man hmm. bàyyiwuma làmb man du ma def loolu. waaw mais képp koo xamante daal caare yaa ngi bëre. di suma rakk. moor laa jàppale. si sama ñax. dinaa yëkkat sama ñax jox la bu soobee yàlla bu nu fi yàlla bàyyee nu ñëm nag. waaye attaque nag léegi nekkati si maanaam ay média di wax. wala di maanaam daal wala di dem ci làmb lu bëree bëree bëri wax dëgg yàlla loolu moom mënatu la nekk mhm. waaw loolu moom mënatu la nekk dinaay dem làmb nag waaw dinaa jékki-jékki yoon ndax làmb dafa neex ndax tey lu ma am ginnaaw yàlla làmb moo tax mhm. yaa ngi dégg mais maanaam na ma ci sóoboon na ma ca mel mhm. loolu moom wax dëgg yàlla moom du ma ne day dañ carrément mais dina wàññeeku dëgg yàlla dëgg la boobu ku dee sa bàmmeel waaw mais wax dëgg yàlla moom du ma bàyyi làmb ba pare nag nekk fi man ni ma damay bëre ba léegi mhm. lu ñor ma wax lu ñorul ma waxtu ma def loolu de day jeex day jeex te samay rakk yi mbër mhm. yàlla na yàlla sama borom fay mhm. yàlla jàppale aar leen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yàlla nu yàlla jàppale ñun ñëpp Sénégal yàlla wàcc fi jàmm ak salaam ak xéewal yow tamit yàlla na yàlla aar barki Seydina Mohamed Bachir yàlla na yàlla aar ndax xam naa ne dag maa bëggoon a jekkoo waaye may wala fa fa <laughs> non non non am na lii message la la maanaam dernier message la quoi dernier message loo bërek ah. loolu nangam loolu moo tax quoi mu demee noonu quoi mm, mm, mm. a sol lii bi ndax ab la boo xam ne tàggatoo la ndax tey boo nekkee ci usine di liggéey tey bay retraité tey mm-hmm. yoon la nga toog say employé wax ak ñoom tey dafa jot tey man ma toog wax Sénégal laa waxal du bàyyi ma ngoon ne man si àdduna laa waxal instant bii nii yu nekk bitim réew ak ñëpp bàyyiwuma kenn képp ku mos a sonna ci bàyyi ma joon yàlla na yàlla sama borom fay mm-hmm. ziyaar ñaa ñëpp bëgge ñaa ñëpp wasalaam mbokk internet Dakar People ñu amoon exclusivité ak suñu xarit Baye Mandione mu jël décision tey mu jël d' accord d' accord d' accord waaw waaw waaw waaw ndeysaan jël na jël na photo sëriñam voilà jël na photo jox ko mu nekk lu émouvant quand même Baye Mandione di yàlla dogal. mu mhm. am si moom cofeel. ndeysaan. macha allah. Mhm. Mhm. non leer na leer na leer na leer na leer na leer na. macha allah loolu mooy cadeau bi nga xam ne ndeysaan yaru xel bi xol bi fees na moom la ko ñëpp xol bi fees na c'est bon c'est bon. kii soxnaam. Mm. daan Fatou moo sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. ndeysaan te kii sëtu Seydina Mohamed la Seydina Mohamed mooy maam direct c'est direct la. mooy Seydina Maam Alassane Laye ñaanam la seize bii di ñëw la incha allah rabbi mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. may nekk xale maanaam moom laa xam damaa judd rek yaa ngi dégg mu nekk xalifa yàlla dogal ma bëggoon ko cofel goo xamante demoon naa sax ba yaakaar ni ci duggee na ndax cofel goo xam si moom billaahi wallaahi tallaahi c'est bon <laughs> xam nañ sa cofeel ci moom xam nañ sa cofeel ci moom yal na la yàlla booleeg moom yal na la yàlla taqaleeg moom yal na yàlla def li gën ci sa suitu sa suitu àdduna wax dëgg yàlla làmb ñu ngi ci jaar yàgguñu ci wante xam nan la ci mhm. say dëkkandoo démb ñëw naa fi ñëpp nit bu dal lan la hmm, seedeel nit boo xam ne doo am bokk ko waa Caaro yi mus mhm. ñoo lekk soo lekk bàyyi leen man en tant que journaliste maa yëkkati sama kàddu di la ko xamal que ne waa Caaro yi sant nañ la gërëm nañ la ne naan ku baax ci ñoom nga mhm. nee naan alal ji nga xam ni li nga xam ne yàlla jox na la ko ci làmb séddu nga ko ak ñoom tey yàlla def na comme ni nga ko waxee nguuru yàlla rek mu jeex sa nguur jeex na ci làmbu dañ lay ñaanal li nga xam ni moom nga dëgmal gën li nga fa passé bàyyi ma njoon yàlla baax na den sant den gërëm ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf